conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo diggante njiitu mi di président Macky Sall ak Aminata Touré seen diggante yàqu na ndax ginnaaw bi ko njiitu réew mi Macky Sall jëlee ci conseil économique social environnemental boobee ba léegi Sénégal yëpp nemmeeku defanta bi diggante Macky ak Aminata Touré commencé na laas yéen Vox Populi Sud Quotidien 24 lii Quotidien nee na Aminata Touré niki démb la doon def passation de service waaye nag wax na ba daaneela la wax na ba ne gër géex moom Aminata Touré waaye amul benn yoon boo xam ne jaajëfal na Macky Sall remercier wu ko aw turam sax Aminata Touré tudd ko te moo ne day jaajëfal na mboolem conseil yi nga xam ne ñoo nekk ci conseil économique social environnemental moom Mimi Touré daat nay wax journaliste yi na leen ànd leen akuk daal bu leen yàkkamti fii du ma fi wax politique waaye du yàgg dara dinaa def politique dinaa wax politique di ngeen ci xam dara engagement politique la Aminata Touré jël yéen si di Quotidien moo xëy di ñu ko xamal nee na moom Mimi sax daan na sa yokku ne engagement bi nga xam ne am na ko ci réewum Sénégal amul lenn loo xam ne dina taax mu daal di say deltu ginnaaw ba noo yéem gu mujjoo yéen a kaay gi de Les Échos nee na Aminata Touré pare na ngir jàmmarloo ak Macky Sall defante ak moom source a nee na guerre ba commencé na bu ñu waxante dëgg moom guerre bi commencé na diggante Aminata Touré ak Macky Sall yéen a kaay gi de La Tribune nee na Aminata Touré li nga xam ne moo ko ëlëm ko ba jaxase ko mooy diggante Macky Sall ak Idrissa Seck déggoo bi nga xam ne déggoo nañ ko te kenn yëgu ko Amadou Ba yëkkati na ay kàddu ni ki démb daal di wax ne Macky Sall moom lay yàlla sunu boroom jox sañ-sañ maanaam muy jël ay décision maître Moussa Diop mi fi jiite woon Dakar dem dikk moom nag ma ngi tubayul ñi nga xam ne ñoo ngi yàq seen dara daan nay wax ne politique du yàq dara du jéem a toroxal ñi nga xam ne démb yéen a àndoona Barthélémy Dias daan nay wax ne bëri na ñoo xam ne ñoo ngi dil ci ndoddu Sénégal waaye nag am na ñeneen ñoo xamante ni yàggatuñ dara danañu feeñ ndax nee na am na ñuy dil ak Macky Sall journal bii di Libération nee na gouvernement bu yees bi biir APR am na ci ñoo xam ne dañoo mer ba maara day taali opposition bi moom waxuma seeni wax ndax ñu bëri si ñoom daat nañuy wane mer mi nga xam ne mer nañ ko loola Mamadou Diop Decroix démb janono ak taskatu xabaar yi ndax dañu ko doon tuumal ne Mamadou Diop Decroix dafa bëgg a fekki Macky Sall daan na koy weddi ba mu seet wecci daan nay wax ne vaar bi maanaam ñi nga xam ne seeni waxu démb ak dañ koy génnewaat méngale ko ak seen waxi tey loolee tax na ñu bëri ñoo xam ne xàmmeewuñu leen loolee kàddu Decroix la ñi nga xam ne ñoom la àndala ci coalition jot na daan nañuy wax ne Idrissa Seck tax na kenn respecté tul politiciens yu Sénégal waaye nag jikko ak borom pax ñoom Ousmane Sonko nee nañu ko xas ba tàmm wuruj amul lenn loo xam ne mën la see génne ndax dara politiciens yi Idrissa sekk yàq na ko ndax kenn mun a xam Idrissa Seck ban jikko la am nu ko neex mel Mamadou Diop Decroix nee na complot ak combine yi nga xamante ni ñoo ngi koy def ci ndodd askan wi loolee mënut a tax ndaw ñi daal di am liggéey nañu liggéey réew mi yéen a kaay gi di source a Aly Ngouille Ndiaye daat nay wax ne kenn du dégg mu yëkkati ay kàddu yu ñagas teg ko ci deru Macky Sall lii quotidien nee na passation de service bi nga xam ne moo doon am diggante Amadou Ba ak ay Aïssata salla Sall daan nañuy salfaañe li nga xam ne moom la Macky Sall waxoon ndax njiitu réew mi dafa waxoon ne bu mu am xumbaay bu mu am rumbaay bu mu am mbumbaay bu mu am ak saboro waaye nag passation service bi nga xam ne gis na ñu ko niki démb maanaam pëcc xoowoon na loola waaye nag Aïssata Tall Sall ni nga xam ne moom la commencé maanaam baaxul dara ndax benn doomam moo tere taskatu xabaar yi ngir ñu dugg ci salle bi yéen a gi daan nay wax ci élection présidentielle yi nga xam ne mooy am ca Amérique Joe Biden jëna jamono ji moo nekk sa bopp waaye nag Donald Trump dafa aw si yoonu lank li nga xam ne mooy résultat yi bu génnee yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu ñi nga xam ne ñooy yeewoo Amérique ñoo ngi xëy di yeew ba léegi ni mënuñu laa wax kii mooy nekk président waaye nag Joe Biden soo moytuwulee vote bi tukkee ci afro américaine moo ko nar a sauvé réew mi quotidien jóge Amérique dal ci Guinée Conakry nee na cour conseil constitutionnel bi tey jii si samedi ji lay joxe wérdig bi ana kan moo gagné yooyu la élection lépp dina leer tey étudiants yi commencé waat nañ jàmmarloo yi nga xam ne tàmmal nañ ko gars démb defante nañ ba ne saay ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi bëri na ci ñoo xam ne am nañu si ay gaañu-gaañu am na ñaari étudiants yoo xam ne gaañu yu doy waar la ama réew mi quotidien ñu fekk fa Alioune Mbaye Ndeera daan def interview bu mag wax na lu bëri ci biir yéenekaay gi wax na ci avenir am wax na lu taax muy faral di way mbëggeel wax na ci album bu yes bi nee na jamono ci liggéey bu rëy la nekk ni tamit am na ko ci lu jëm ci yi nga xam ne nekk na ci ci sodaaf bi nga xam ne Macky nee na nañ ko audité Aliou Mbaye Nder nee na sa normal dañu ko war a audité comme ni ñuy audité yeneen structures yi yéen a kaay gi di direct news daan na xëy def dossier bu mag ci jigéen ñi nga xam ne dañuy sëy lu yàgg-yàgg duñu am doom ak jafe-jafe coono yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel la waaye tamit bëri na ci ay góor ñoo xam ne feebar bi si ñoom la dañuy mujj di ko tuumaal ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi Alassane moom nag li nga xam ne moo ko gën a metti ak erreur bi nga xam ne def na ko nee na dafa signé monogamie te bu jigéen bi mu takk munta am ak moom doom te bien commun maanaam séddoo delloo alalam loolee la signé journal bi daal nay wax si ñaari parti yëpp ñooy am jafe-jafe ndax léeg-léeg feebar bi ci góor gi lay nekk léeg-léeg si jigéen gi waaye nag am na ci loo xam ne dogalu yàlla la noonee la ko journal bi xëy waxee stade yéen a kay dikk na ci match yi nga xam ne tey jii dina tàng jër Liverpool dina dalal Manchester City loolee choc la Dortmund di dalal Bayern Lazio di dalal Juventus Atlanta di dalal Inter yéen a kaay gi di sunu làmb mu ñu xamal naa ñu bëri na ñoo xam ne jàpp nañ ne combat Modou Lo am ndax ñenn ñi ne nañ combat